sa tur de sant di nuyu Ndeye Awa bi nga xam ni moom moo ñu fi dajale tey Ndeye Awa ni nga liggéeyee nii man neex na ma te boo bu ngeen continuer nii Idrissa Seck comme léegi moom ville bi ko dese di ngeen ko fi jëlee prochaine élection loolu leen dégg Idrissa Seck waratu fi gañe parce que président Macky Sall li mu def Thiès ak li mu war a def Thiès yëpp waratu fi gañe lii nag ànd bi ngeen ànd nii li ngeen ànd nii mu rafet bu kenn aaye ñëpp ñëw loolu ngeen koy àndee ci ci xol bu tegu buy ngeen la république. laa leen di laaj ànd leen jëlee fi Idrissa président de la république indi fi projet yi nga xam ma fa indi indi mu te chemin bi ma jox chemin de fer bi ma jox gis ngeen TER lancé nañ ko dañ ko attribué chemin de fer bii 754 milliards mu nal ko ci def muy investissement propre. ki fi nekkoon di ko yàq dàq nañ ko ñu ngi ñëw indi donc affaire dina dox nañu mun te jàpp xam ni chemin de fer dëkk bu mu amul du développé moo tax président Macky Sall li mu fonk chemin de fer moo tax mu nommé ministre bi nga xam ne moo koy toppatoo moom xam na importance chemin de fer ci Sénégal seen li ngeen di di ma jël conseil yi ma jël e, Seck mi nga xam ni fii la nekk ak yéen retraité woon dëkk fii moom laa jël comme conseil technique ak Alexandre ñoom xam nañ leen toujours bu ñu ñëwee lu ñuy wax lu ñuy jëkk a wax mooy li ngeen di dund li nga xam ne ñoom ñoom ñoo dëkk ak di ko dund ak ñoom ñu nekk ci jóg di ko defar donc vraiment loolu yëpp ñu ngi ci taxaw di leen ko defaral di leen ñaanal jàmm di di di di remercier ndey Awa di ko wax ni que xam nga dañ ni dolli dolli yàqul cin dolli yàqul cin da koy safal rek safal nga cin bi continuer def noonu objectif bi ñu leen laaj nag mooy ITRESEC législative yi di ñëw il faut ngeen gañe ko bu ngeen ko gañewul man dootuma ñëw di jërëjëf jërëjëf ñu ngi sant. di coordonnateur départemental APR bu Thiès di nuyu ñi fi teewal monsieur le ministre Thierno Alassane Sall responsable politique cees bi di nuyu monsieur le président Abdou Mbow moom mi ma bokkal Thiès Est monsieur Mbagnick Diop mi fi jóge di président du MEDES maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu. monsieur Siré Dia directeur général de la poste à travers délégation bi mu fi yabal tey maa ngi nuyu monsieur Omar Diop directeur général de la SAR à travers délégation bi mu fi yabal tamit le docteur Papa Amadou Ndiaye PCA du FONGIP sama tonton wu bopp maa ngi koy nuyu madame bu Ndiégène maa ngi lay nuyu PCA du PTB et ma sœur de cœur et de parti sama frère Demba Diouf damay ñëwaat ci yow à titre personnel di la nuyu di nuyu responsable politique yi ci commune bi yépp ak yi ci département bi yépp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant duma fàtte borom mouvement de soutien yi ñi fi nekk di jàppale président Macky Sall maa ngi nuyu tey sant suñu invité yépp rawatina responsable politique yi ñu bokkal benn Bokk Yaakaar mën naa wax ni li ñu fi waroon a wax yépp ci jotaay bi ñi jot a jël parole wax nañu ko ci anam yu rafet macha allah dafa di rekk mënuñoo ñàkk gërëm ñi nga xam ni ba ñu nasee meeting bi ba tey noppaluwuñu benn yoon dugg di du bëccëg dinaa ci ràññee dëkkandoo yi muy waa Balabé waa cité ouvrière waa cité Pilot surtout jeunes yi ak militan yi ca sama comité yi waa Buntu Dépôt waa Kër Issa Medina Fall ak suñu sympathisants yi jóge ci yeneen quartier yi yépp bokk ak ñun bis bi maa ngi leen di nuyu sama mbokki bokk ak sama xarit yi seetaanuñu ma benn yoon rawatina sama baay yi fi teew ak sama tànta yi yàlla na la may leen yàlla fayal dinaa beral ngërëm responsable yi nga xam ni ñoo ma jàppale ci mobilisation bi laabire ma ci seen xel ak seeni expérience ak seen alal ba bis bi mel nii mënuma bañ a tudd sama nijaay docteur Papa Amadou Ndiaye ak sama nijaay Idrissa Diabaté sama mag sama xarit di Mbagnick Diop président du MEDES sama xarit Charles Fall DG de la SONES mention spéciale Charles sama bàyyi bopp Cheikh Ngom monsieur Alioune Seck conseiller du secretaire d'État au réseau ferroviaire national di dëkkandoo di bàyyi di nuyu Maodo Malick Mbaye di nuyu sama nijaay Abdou Ndene Fall Abdou Ndene Sall ngeen baal ma Ndey Sukey maa ngi lay nuyu Lamine Aïssa Fall Lamine Ndiaye sa taxawaay rafet na Umu Njaaj di nuyu Dame Diop sama càmmiñ Maymuna Sène mention spéciale gis nañ mobilisation bi jërëjëf wàllu organisation ak mobilisation bi jigéen ñi ak jeunes yi parti bi waa réseau des enseignants APR association wu cheminots yi ak sama rak yi ci cité bi defal nañu ma ci loo lu kawe sama njort bas ma jum bu ma limee damay juum cité bi yéen ñëpp maa ngi leen di delloo njëkkal macha allah taxawu ngeen ma jërëjëf ginnaaw loolu. maa ngi félicité responsable APR yi fi nekkoon démb ba dara dul dara ak ñi ma fi jiitu ci parti bi ñépp te di leen wax ni maa ngi ci seen wet samay ambition nag mooy bokk ci liggéey bi jàppale président Macky Sall ba récupérer Thiès jébbal ko ko ba mu mën koo defar nag ci ni ñu ko bëggee ndax Cees lañu am te ñoo ko war a defar te ñu gis doxalinu président Macky Sall xam ni defar Sénégal rekk moo ko soxal looloo tax ñu war koo jàppale suñu bëggee foqati Cees ville nag il faut ñu ànd yaatal base parti bi maanaam massifier ko ni ko président santaane tey taxaw ci lépp luy ndimbal population yi di yombal seen nekkin loolu moo ma tax a ñëw ànd ak yéen maa ngi jébbalu maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm waaye bala maa delloo micro bi ma dolli ci ngërëm yi sama sœur Rose Ramadem Jéegay Fama Aydara tey jéggalu bu dee am na koo xam ne waroon naa koo tudd fii te ma fàtte ko maa ngi leen di yër gërëm sama yaay mention spéciale maman sama papa wax dëgg yàlla mësula yaakaar ne politique dina dugg biir këram mooy sama militant numéro un jërëjëf papa jërëjëf waa Balabé wasalaam dugg ci biir politique bi ci yaatal la yaatal la jiitu jàppale ñi ma fi fekk ñu jàppale doole président Macky Sall ba fi mu bëgg Sénégal egg fa mu egg fa. en bu ngeen ko xoolee Thiès est certes dans l'opposition actuellement mais Thiès fi mu nekk nii mi ngi toujours ci opposition bi dëgg la mais man mënumaa wax loolu sax ndax bu ngeen xoolee résultat yi ñu mujjee am ci référendum bi macha ñi ñi ñiy liggéey ci terrain bi gis nañ seen ay résultats te balaa législative yi incha allah dinañ continuer liggéey bi ñu war a def législative yi bu ñëwee suñu objectif mooy ñu wëlbati tendance bi delloo Thiès APR te nag continuer liggéeyal président Macky Sall ba falaat ko 2019 loolu mooy suñu objectif te je pense que bu ñu àndee ñun ñëpp war nañ koo mën te tey nag li ngeen fi gis da ngeen ko war a rafetlu maa ngi koy rafetlu mooy ànd bi gis ngeen ne ñi parti bi moom tey kenn desul ñëpp ñëw nañ wala ñu yónni nit donc c'est un message tey jii dañu bugg président moo xam ne waa dajaloo nañu uni te nar nañ koo liggéeyal ci anam yi mu ko bëggee. Euh, xam nga semaine de fer fi ñu ko jëlee moo sori liñ fi fekk yàqu-yàqu yi bari na lool waaye ku xam président Macky Sall xam moom pragmatisme am ak vision bi mu am ci dëkk bi. ak réalisation yi mu fi def buñ ko xoolee ci pont Sénégal émergent bi ci ñaata weer lañ ko liggéey. pour na citer que cette réalisation là je pense que war nañ koo mën a wóolu fi mu bëgg a yóbbu chemin de fer man mii di doomu cheminot gëm naa ko te ñu ngi koy tàllal suñu loxo fu ñu soxlaa ci wàllu relance du rail bi ñu ngi taxaw pour jàppale ko ci ak cheminot yi fi nekk je pense que ñoom bëgguñu lu loolu redécoller parce que avantage yu Thiès la Thiès bu raay bi doxee chemin de fer dox Thiès suqaliku parce que nombre de famille yi loolu li yi yi yi làqu yi bootu ci raay bi moo bari moo bari te xam naa ne bu loolu doxee dinañu relancer économie wu Thiès incha allah. wax loolu ñëpp ci war a jàpp ñëpp ci war a jàpp bu ñu xoolee ci problème ndox mi ba mu tàmbalee ci la autorité yi nga xam ne ñoo féete woon ndox mi taxaw ci temm def ci jéego yu rëy nag ñu di ko saluer waxoon naa ko fi xëy na bu ma ko euh, ci tubaab laa ko waxoon ngeen baal ma. ba problème yooyu commencé ci ci cité bi ci biir cité bi. ñun contexte ba ñu nekkoon ndawal buur li gérer ndox mi da koo teggi teg ko ci suuf li ñu ma njëkk a wax bi ma wooyee directeur général am SDE SONES pardon te moo ma booleeg moom moom dafa woo ñi muy liggéeyal ñuy yëngu ci wàllu juridique mu ne leen nan la ñu mën a jàppalee cité boobu am problème ndox tout en restant dans la légalité loolu lu rëy la parce que bu xooloon A plus B égale C rek danaan ñi waruñu leen mën a jàppale ndax conditions yi ñu fi fekk la nekkuñu ci réseau SDE c'était un réseau privé te boobu ba tey dara wàcc ko mi ngi ko ciy def huit citernes par jour ñi ngi approvisionné cité bi depuis le 26 décembre pompe bu bees sàq jënd nañ ko def ko ci kii reprendre société bi tamit taxaw na ci wàllu ndox mi mi ngi liggéey ak moom directeur général SONES je pense que bu dul yàgg dara yàlla bu ko bëgg bu bu ñu jàppalee dinañ trouver une solution ci problème ndox boobu donc loolu mooy wax yaa ngi wax waxu mbënd mi tamit waxu inondation yi bu ñu delloo cinq ci ginnaaw rek lii di mbënd bi lii di électricité ak leneen ak leneen gis nañ jéego yi bu ñu xoolee problème électricité bi heure bi hivernage mosuñoo toog journée bu mat sëkk ci at yi ñu génn teg amuñu ay coupure courant lestage mbënd mi dañ koy xool ci yenn quartier yi rek lépp nag mënut a xëy sotti dañuy rek rafetlu li fi président def ak ñim fi teg te di ko encouragé di ko wax ne ko lépp lu mu taxaw ñu war ko ci mën a jàppale rek dinañ ko ci jàppale ñu ngi rafet njort torop Macky Sall dama koo bëgg te xamuma ko musuma koo gis mësuma ko gis ni muy liggéeyee moom laa bëgg Mansour mii ba ñuy former APR fii la ñu daan ñëw di def seen réunion dugg ànd ak Augustin dem ba Diouf responsable Thiès yëpp di sillonné dëkk bi ni ko Macky Sall doon sillonné ci yeneen ville yi te booba bu ñu ñëwee dañuy waxtaan bu ñu waree añ ñu añ waxtaan ba suur daal di jóg ma gunge leen ñu dem doxi loolu kon man politique bi calculé wu ko yàlla moo def nag par sama ay action ak par ñoom li ñu teg ma wóolu leen ndax politique am na ñoo xam dinañ ko bëgg a def waaye ñu fi fekk dadul dal seen xel man nag damaa toog ba sama xel dal ma woo ko ñu waxtaan ci ndax sama xarit la nag du ma ne damaa dugg ci APR rek warumaa ne Mansour sama xarit la Mansour sama xaritu démb la je le connais depuis plus de vingt ans kon su ma jógee di dugg ci politique te ñoom ñu nekk ci parti bi ñi ma ci war a waxal mooy samay xarit ba pare loolu mënuma ko tuddee parachutage jàppale leen jàppale kilifa gi fi ne noonu moo ma dugal ci biir politique déedéet yàlla tere ndax man maa ngi liggéey tey jii fekk naa ci parti bi ñuy liggéey li ma war mooy fu ma mën a jàppee indi ñu bokk résoudre soxlay population bi dama bu dee doomu jullit laa dama ko war a def waaye du buuxante parce que tey jii ku ci ne yàlla dafa def doomu aadama yi mu bind yëpp amu ci ñaar ñoo xam ne tey jii ñoo bokk lépp lépp lépp toujours dina am une différence toujours dina am une différence donc différence boobu mi ngi ci xam-xam mi ngi ci yar mi ngi ci njàng mi ngi ci culture donc loolu lépp buñ ko boolee nga gis mbooloo mu bari ku ci nekk nga jël ci tuuti dugal ci leket gi je pense que sa marché dina neex buñ ma joxee cër ma jël ndax damaa nar a liggéeyal président Macky Sall incha allah waaye ma pour ñu jox ma cër damaa ñëw pour ñoom lii ñu ma jàppale mu gën a mën a dox ba nga xam ne population yëpp dinañ ci gis seen bopp.